waaj leen ñu dem Kaolack ziyaara ji maam Khalifa Ñas moo woote Sénégal leen ñu dem Kaolack ziyaara ziyaara ji maam Khalifa Ñas moo

Léona Niassène. Mame Khalifa Niass moo woote. Sénégal loo bëgg am lu mën a doon. fexal teew sunu ku woote. Sénégal waaj leen ñu dee. tax ziyaara ji lew na ñaasa maam Khalifa Niass moo woote Sénégal maam Khalifa Niass moo woote bu ñu woowee ñun duñu foose Sénégal waaj leen ñu dem Kaolack ziyaara ji ziyaara ji maam Khalifa Niass moo woote Sénégal ziyaara ziyaada boo ci teewee am yokkute Sénégal waaj leen ñu dem Kaolack ziyaara ji ziyaara ji Xalifa Ñas moo woote Sénégal gàmmoo yónneen ziyaara Seexu Tijaan kon taalibe yi ñëw leen ñu dundal leen Sénégal waaj leen ñu dem defal na ko maam xaalifa ñas moo woote maam foo ma woo ma wuyu soo wootee maam man duma wuute Sénégal waay leen ñu dem kaw na ko na ña seen am nga bis biso ba lew na ñaseen mooy ziyaara bi ngeen la bu ko tardé Sénégal waaj leen ñu dem Kaolack ziyaara ji lew na ñaseen Maam Khalifa Ñas moo woote Sénégal aduna ma moo fi dàq way du sama wax gaa yaa ko seede Sénégal waaj ñu dem siyaara ji siyaara ji xalifa Ñas moo woote Sénégal concours ba saax ñëpp fa teewoon ñu rasat leen jël ko invité Sénégal wañ leen ñu dem Kaolack siyaara ji siyaara ji xalifa Ñas moo woote Sénégal concours ba saax ñëpp fa teewoon ñu rachuté leen jël ko invité Sénégal wàññi ñu dee Kaolack siyaare ji lew na ñaasam xaalifa ñas moo woote Sénégal way na yonant way na Cheikh Tidiane ay xeeti way yu kenn naatable Sénégal way leen ñu dem Kaolack siyaare ji siyaare ji xaalifa خليفة بيبو بحرو وين كوشيخ ويكو يونين ليدو أماتي سنقل وجلين يودين قولك سيارجي سيارجي خليفة سنقال سما صلاته مع سلام مام خليفة نسمو وتين